salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi maa ngi ñëw live bu ko kenn tardé xam nga lan moo tax ma defaat vidéo bi parce que ñu bëri dan may dan may wax naan ma kan mooy Abdoulaye Sylla kan mooy Abdoulaye Sylla Adama dimbali ñu xamuñu Abdoulaye Sylla yéen information bu ngeen soxla ak lu ngeen laaj bëgg ko xam rek man pare naa man boss day négé tegal leen ko ci taabal ji kii ma affiché mooy Abdoulaye Sylla homme politique la bu mag a mag a mag a mag sax ñu bëri dañ ko découvrir parce que siwul noonu mais homme politique bu mag la waaw moom APR la far waaye moom bokkut ak ku nekk ak dafa bëri parti ku nekk nga faral ak ku nekk la muy def léegi nag ñoom mag gi la dajale ay ñoom ñoqali ca kaw euh, ñoom euh, duking ñeneen ak ñeneen deux cent trente influenceurs jox leen dossier bi nag ne leen da ngeen koy signé nii lay demee contrat bi temps moo ci nekk ci xaalis nangam nangam nii lay demee durant six mois yëpp amu leen droit promouvoir benn homme politique bu dul Abdoulaye Sylla ñoom ñëpp jaay nañ seen ngor kii mooy Abdoulaye Sylla moo moom logo bi moo moom parti bi mooy présenté wu comme candidat